mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm sur www.igfm.sn tey information yi li ci euh, gën a mooy euh, quinze personnes yi nga xamante ni dañu doon euh, def ba ñoom nag yoon da leen daal di teg loxo defeere leen fële parke ba dinañ leen xamal lan moo waral rek ñu daal di leen di teg loxo fële ci Louga mu am benn waay boo xamante ni dafa doon tuumaal jabaram ne daf koy mooy moom nag mu daal di koy euh, jam ay paak yu euh, bëree bëri donc euh, kii nga xamante ni rek mooy Awa Diouf daal di rayoon doomam bi nga xamante ne dafa ëmboon ba am juróom benn weer ci fan yële ñu génn am na lu fi ruusaat ci ay xibaar fële ca jàmm gën rek mu am ñaari wujj peccox ga yoo xamante ne dañu doon a xeex ba daal di mujj prison kii di ausman Sonko ginnaaw bi mu defee visite rek fële ca kër Massar moom lu muy xam ne rek mooy état bu euh, Sénégal ay euh, dëmm lañu donc euh, kii rek di Ngoné Ndour moom nag dafa daal di génn am benn live boo xamante ne def na ko rek di wax ak état bu Sénégal nis tuut ñu farañ fàcceel leen xibaar yi. fële Tamba Kunda, dañu fa jàpp rek quinze personnes yoo xamante ni rek ñoom dañu doon passante lii di épreuve corrigée yu baccalauréat 2020 donc ñu ñuy xamal rek ne ci onze ci ñooñu dafa am ñoo xamante ni euh, dañoo am examen bi donc ñoom nag yoon teg na leen loxo daal di di déféré donc ñoom nag dinañu wuyu ji rek fele tribunal bu grande instance bu euh, Tambacounda euh, ñoom nag ñu ngi leen di

ci biir euh, quinze personnes yi la rek am na ñaari jigéen yoo xamante ne euh, ci lañ bokk donc euh, ñoom nag ñi ngi négane ci kaso bi rek pour procureur bi daal di prononcé wu ci seen problème bi la donc fele luga, Louga dafa am ben way bo xamantene dafa don euh, tomal euh, jabaram am jëkkër am far ba mu daal koy euh, jam ay pak, ba mu am ci ay gañu gañu yu metti waye yalla def na ni rek muju gen génn adina kii di i Diallo mom nag dafa soupsoné rek ne kii di jabaram dafa am jëkkër am far lolu tax nak ba yon tegon ko loxo ba ñu ko don juger donc mom lu muy expliquer rek ci tribunal tribunal bu Louga mooy kii di euh, jabaram euh, dafa am jëkkër am far comme ni ma leen ko waxee woon euh, sonk loolu moo taxoon rek mu daal di koy jam ay paaka waaye moom amul woon benn intention rek daal di koy rey donc moom devant la barre lu muy xam ne rek mooy guddi googu dafa tëdd ba ay trois heures du matin mu tourné gisul jabaram bi mu ko seetee bu baax la ko gis ci néeg bi mu daal di toog ci benn sijaada ak rek kenn ku góor mu daal koy kole kole bu euh, métti ci la daal di euh, jug rek euh, mais waa ji ba mu ko sentiree ci la daw mu daal di koy dàkke ba sonn gisu ko bi mu ñëwee ci biir néeg bi daal di saaga jabar ji mu daal di fayu mu daal di koy dóor mbécc jabar ji daal di jël benn bant dóor ko ko donc si la daal di perdre contrôle am rek jël paaka yi daal di ko koy jam waaye amul woon benn intention rek daal di koy rey jabar ji nag yàlla def na ni que génnul àddina ñàkkul bakkanam waaye amoon na ci ay gaañu yu euh, metti ba mu ñëwee moom tamit euh, devant la barre lu muy xamle rek mooy lii di jëkkëram wax du euh, dëgg benn yoon ndax moom musul am jëkkër am far donc kii di avocat wu i Diallo moom naka lu muy xamle rek mooy comme kii di soxna si lay ñàkku ci bakkanam dafa amoon incapacité temporaire bu 60 jours nga xamante ne du mën a liggéey donc coups blessure volontaire volontaires yooyu nga xamante moy mooy certificat bi ñu ko defaloon mu mu koy refuté rek euh, di wax ne que yoon mun na bàyyi client am bile mu dem waaye finalement nag chambre criminelle bi euh, moom daf ko daal di euh, jugé daal di koy tëj juróomi atu kaso loolu la l'observateur di xamal waaye fee yi nga xamante ni rek moom mooy tentative de meurtre dañ ko dàq. kii di uh, Awa juuf nak uh, ginaaw bi nga xamee nek rek uh, fele ca Refane bambay moom dafa daal di rey doomam bi nga xamante ne 19 ans la am mais dafa umboon nak ba am juróom benn weer moom muy xamle rek ne kii di doomam bi le da koo daal di teg gàcce ndax moom ginaaw bi nga xamee ne amul woon jëkkër mu di ëmb ba pare dem sëyi mu loolu nag mu nekk gàcce goo xamante ne munu ko woon dundee benn yoon mu di bàyyi rek ba xale bi daal di euh, dugg ci douche bi di xool ndox bi ndax tàng na si la ko fa fekk xoj ko mu di euh, ñàkk donc moom nag dañu ko placé woon sous mandat de dépôt depuis euh, l'autre jour donc moom nag placé nañ ko sous mandat de dépôt ki nga xamante ne juge première cabinet bu Diourbel moom li ñu koy tuumaal mooy assassinat et tamit dina dem rek soo tuulee fële ci chambre criminelle donc bu fekkee rek instruction bi moom dafa confirmer rek euh, fee yi nga xamante ni euh, moom la ñu koy euh, tuumaal. fële ca euh, si Sicap Mbao dafa am rek ñaari wujju peccorgo yoo xamante ne dañu doon euh, xeex ba këppante ay ndox muy euh, jaariyatu dee ak Aminata dee ñoom nag bi ñu amee ci ay gaañu gaañu ku ci nekk rek da nga dem daal di wut certificat médical kii di jaariyatu dee am certificat médical bu 20 jours kii di Aminata ka am certificat médical bu 12 jours waaye rek yoon da leen daal di teg loxo ñoom ñaari ñëpp donc laas

kii di eh, Ousmane Sonko ginnaaw eh, démb bu mu demee fële ca Kër Massar daal di fay def eh, benn visite de terrain rek pour xool ñi nga xamante ne ñoo fa dëkk jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñu am donc kii di Ousmane Sonko ratewul benn yoon lii di gouvernement bi nee na rek ñoom ay dëmm lañ et que dëmm nekkul rek ki nga xamante ne mooy lekk nit wala di naan deret ndax dëmm mooy ki nga xamante ne lépp loo xamante ne rek bu ñëwee yow sa waa famille ngeen daal di koy séddoo ne dandiix lekk donc moom ma noonu la ko waxee ñu wax rek ne que démb bu mu demee rek xolam bi métti na lool ndax nekk na loo xamante ne nit rek mënu ko xool te amoo benn sensibilité ci situation bi nga xamante ne moom la sénégalais yi di dund moom tamit muy continuer di rek di wax ne que lii di régime bu euh, Macky Sall ñoom ay incapable lañu ndax rek euh, lii di population bi di dund dafa wane rek ñoom dañoo fay yéex ci seen ay euh, devoir rek moom euh, lu muy wax rek mooy ñii nga xamante ne mooy euh, gouvernement bi nekk ci euh, palais yeeg villa de luxe yi ñoom nag patauger wuñu benn yoon ci ndox yi nga xamante ni moom la population bi di dund mu nekk ay conditions yu dramatique muy wax rek ne que munoo benn yoon di gouverner ba pare daal di nekk njiitu réew di ignorer rek li nga xamante ne moom la population bi di dund moom nag dina rek jàkkaarloog ñi nga xamante ne mooy dëmm yi lee di naan rek deretu askan wi kii di euh, Ngone Ndour moom nag dafa daal di euh, génn rek def euh, benn live moom nag mi ngi rek di ci wax ak kii di njiitu réew mi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci gouvernement bu Sénégal di leen wax nañu ubbi salle de spectacle yi moom nag mi ngi wax ak particulièrement ministre de la culture ndax di wax rek ne que artistes sonn nañu trop ñoom kenn gënu leen impacté ci li nga xamante ne mooy Covid 19 bi donc di leen wax ne salle de spectacle yi mun nañ mesures euh, barrières di wax rek euh, mën nañu raxas euh, seeni loxo di dandante ak respecter les distanciations sociales donc loolu bu ñu ko deful dina gën a métti ci artistes yi am na ñenn sax ci artistes yi nga xamante ne ñoo ngi jël seen ay instruments di ko jaay ndax rek am problème bu ñuy dundee di wax rek fii réew mi toll métti na lool ci artistes yi di ñaan nag fi lekk ay fan rek kii di ministre de la culture daal ci jël ay mesures ba artistes yi la mën a seen ay liggéey mbokk yi ñu ngi leen di uh, jaajëfal li lañ leen indi indiloon uh, ci ay uh, xibaar di leen jox dig daje ba ëllëg ak yeneen i xibaar di leen wax rek ne information yaa ngi continuer sur www.igfm.sn